jox nu ci sag baax fay di fëkke nit nga nu fëkke teg nu fu fëkke yëggul ci sag baax yaa deqi pakk musle ci pakk te maye pakk bu baax akum taax mun yaa nu xëpp sa jàmm jépp teg ca lu ëpp cere gënub laax le nga cim ndog musle nga cib gag te musle nga ab dog yow sañ nga noo gëléem a ngi ŋaax te mbaam a ngi ŋaax koo seen a ngay ŋax tey sippi ay gaax ses yaa ngi joore may yaa ngi joore yiw yaa ngi joore nu sax ca law laax saf yaa ngi joore may yaa ngi joore yiw yaa ngi joore nu sax ci law laax yaaraa liggéeyi ba ngay liggéeyi kenn du liggéeye dara lu dul faax faax nga sab tool defar nga sab tool yaa fi gënub tool ngën ji mayey baax def na nu sab tool faw sunub tool bokk yowub tool suuxal na tariyaax yal na nu raw góor ci yow ki not góor gune ba kuy góor nig fetalam yaax nangul barab yi nangu njariñ yi nangu ndigal yi jox nu ci sag baax nangul barab yi nangu njariñ yi nangu ndigal yi jox nu ci sag baax jañal ku nuy jañ te bañ ku nuy bañ te xañ ku nuy xañ te muñ ku nuy muñ cawal ku nuy jëw te dagge ko naw xañ ko lu ñuy naw def ko ku ñuy foñ képp ku nuy tas ñépp na koy tas débu mu am tus bu mu deses tas ñépp na koy tas te bu mu am tus bu mu deses mbëñ képp ku nuy xeeb ñépp na koy xeeb faw akay waab muy boqi gañ gañ def nu ci bari yeer wërale nun yeer ba noppi tey yeer mboolem ñi niy bañ képp ko ciy réer ba jëme nu réer na daanu ci mi yeer xolam ni gañ-gañ te lu nu bon bon gaa farag nun te ba lu dul nun na seeni lor dañ te seeni mbir jub seeni jëfit jub seeni layit jub bu ñu gisum xeñ bu ñu nu xeñtu bu ñu nu gëstu bu ñu nu liñtu fegal nu lañ lañ nu xañ xañ nu dañ dañ soril nu doñ doñ fàggul nu ay añ te nu ab reer faw akuk leer musal nu ci réer nuy sant kay muñ te nu ab reer faw akuk musal nu ci nuy sant muñ jamaale yaa ngi leen ndaw saa di waaja kare koo gis mi ngi bëgg a dee ngir nopp ko ay naka mbir jamaala yaa ngi leen ndaw saa ngi di waaj kare koo ma ngay bëgg a dee ngir nopp ko ay naka mbir yii gaaya ngi di ko may ay junni ngir bëgg a jël yii gaaya ngi bëgg a jël bay jaayi dooma ki kër yii gaaya ngi bàyyi seeni bokk topp ko te naa ko ndaw si leen ndax waxteenu loo xalajar yii gaaya ngi dadu dunyaa jépp ngir bëgg a jël yii gaaya ngi bëgg jël bay dox di bay ak a gor yii gaaya ngi bëgg a jël bay fàtte seeni bakkan yii gaaya ngi bëgg a ngi bëgg a jël bay fàtte dal ak i fas ay gaa yi lee gën a am ngor gaa yi lee gën a xër ku nekk ngi nobanam ndaw si ba mel ni ku dof xam naa ni si ndaw a gën gën ay moroomam mi far yow boo rëyul ite doo jël ndaw si maa la ko wax te boo amul xel mu rëy ndaw si du tàbbi sa kër ngir ndaw si day jomm lee kay dox di sukka këree ngir ndaw si day jomm këree fi ku bëgg ak bëggul kenn du xam la mu nar mboolem faram woo fi gis muy wéy defal na ko lëf ku dikk muy reeka may teggi na kay may sër wii fara ngi sant naa man ndaw siree na ma tey wii far di sant te naa ndaw saa ngi xam sama tur wii far di sant te naa ndaw saa ngi naa ku la jur te ndaw si lépp lu muy may nit te xam ni fabul jëmam jamay ko da koy nax jëm mujjee gëni jur nun yàlla nan ndaw si may jëmam ji may gunu bir nafaf ko yóbbu sunuy kër yegg léegi bu wér sëriñ bi ngir yàlla ak yoneen bi ak sabakan sarax ma ndaw sile ak taaram bu bi mu yor ku nekk may nga ko ndaw sam bëgg may ma nit ndaw si ma bëgg te yow doo gàntu kenn naka war te lépp luy teema jël ndaw si fegal ma ko man te may ma ndaw si te dàkkul may ndaxee la kilor na laq ndaw si ba fay saabar yu rëy yi ma yor ku làq ndaw si le fay say bor ba doo dese bor si ndaw du say joxe bor si ndaw du say joxe lor si ndaw dafay dàqi lor fay bor di may nit koo xam ni yéene na ma jël yal na jël te ma jël koo xam ni yéene na ma wér yal na wér te ma wér koo na mag jag yal na jag te ma jag koo xam ni yéene na mag wër yal na wër te ma wër koo xam ni yéene na mag man yal na man te ma man mboolem ku may farle man nii bamba yal na ko far yoneen ba ne waaju waaju gëm buy wax na waxu yiw te noppi lisu ay nan aw ndigal naka mbir yoneen ba ne sëriñ bi kenn la maasam mës la am te du am moo jiitu sang ya dee faa dégg ak yi nu gis mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ko mel ni Ibra Faal la seex ak Ibra Faati nu gis sëriñ si yéen a ngi nii tee ngeen xëy daje bis te dikk def nii nu def jébbal ko seeni kurus da yokk diine di ful wërsëg di guddalu fan di fekk lor ak kër kër ak tartar ku wet dina mus ko mus mu seeti ko ngir suukar la waaju ko mus mu seeti faw musal bul faala yow ku la xas ku fas ni ban ba sa maasum bàyyi dëgg jógal ànd ak sa jëmm te dem lambar na del si nu gis sëriñ bi yaa gën a am yërmaande may nga nu xaat am ndox mu doy ku la xis am wenn yiw du ko faat maral wi deñ na sunug ràgg ak sunug tële deñ naataange ñëw na ba gàncax gaa ngi mag gëkkanaat nun noo xamub texe ngir noo ngëb ci xeej ji bu réy boo xam ni wax ju mu wax koo gis da koy mën a waat noo ngëb ci xeej ba yor caabi ka sàkk aras moo nuy tijjil màngasiinub yàlla béekata jaat bu nuy amus coxla muy tijjee kafaab di nu jox bu coxla say faju muy tëj mat na ñépp mamaat bu nuy amus coxla muy tijjee kafaab di nu jox bu coxla say faju muy tëj mat na ñépp mamaat moo jàpp diisam bu dul dog sànni yàlla bu wér nu sànni koy goj yu bon moo tax nu war di rawaat rawaati goñ moo di loo daa def nga def lu ko gën gën faa nangoo joxe gën faa farlu far fa gënaat moo tax sunum xela dal moo tee sunu fiita dem moo tee nu rus sëtam yi bon ba mel ni bonaat yéekeeru nu si lëf lu dul moom ak notam yi mu not noo ngi woyaa naka jeexaatoo ko dox di forat ndax yàlla buy notti may nus lëf lu tax nu ñee ña dee fi di nawaat notti may nus lëf lu tax dunu ñee ba ñu far nuy ñee ka dox di nawaat ku nekk war nay rawaatit ab gojam lu mu man goj boo xaloo dugge mat nay yokk a kay wéralaat te yokk say ite faw ak say addiya bu wér ak sab siyaara ku def lii sab sëriñ du la faat tey yokku say ite faw ak say addiya bu wér ak sab siyaara ku def lii sab sëriñ du la faat yaa gën ñuy bëgg ka wut yaa gën ñuy dox di mébét yaa mata bëgg mata wut yow ku la am falu di buur jóge nga yow faw fi suuf doo dellu yow mukk fi suuf safe nga doo safee ka soof ñam nga mudul na baka xuur jóge nga yow faw fi suuf doo del yow mukk fi suuf safe nga doo sàppeeka soof ñam nga wudul na xuur sant nga yow te sant lu sopp nga it te sopp lu topp nga it te topp lu yaaram bi jëf nga jëfi góor yaa mën a sës rëkk ci buur yaa mën a saytu gaayi buur bégal nga buur ak gaayi buur ñépp ngi bég ci yow buur naka ma xam ni duma góor téer ba xam ni yaa góor laa te naa jaajëfe góor soo des a tax nit ñépp suur man duma lëf duma dara te kenn du lëf kenn du dara yow yaa di lëf yaa dara làq nu bu ñu nu dóor tey ëllëg bu ñu nu dóor sunu kokit bu ñu ko dóor te kokomit bu ñu ko dóor noo fi yow di sa fi liir tey ëllëg bu ñu nu daan sunu kokit bu ñu ko daan te ko komit bu ñu ko daan bu nu gisul ak ku guur yonan ba def na la jiba na nu def faw jiba te bu nu wàcc bu nu ba def nu ku ku bari muur na nu def jibay ngërëm ñuy feesa feesa ki ngërëm tey feesa feesa ki dërëm faw te def nu waay buur na nga nu def jibay ngërëm ñuy feesa feesa ki ngërëm tey feesa feesa ki dërëm faw te def nu waay buur nan jéema sant gërëm buurub aras ki nu jox xiwal yu toll ni suufam si nu gis ni xasar moo jàpp gëm jox nu fab yoneen ba jag lenu fab sëriñ bi yàkkal nu yàkkam beeka neex ak a ñor fu nekk teg na fa yàkku mbég bu ñépp di bég ba noppi jébbal nu boppam ñépp ñeenu ba mer sëriñ bi ni ko séddoo nun la yàlla faral yoneen ba saaba yépp ak bëri yenun lañu far sëriñ bi nun ñii ko séddoo nun la yàlla faral yonen ba ak saaba yépp ak bër yenun lañu far noo jël ab jël bépp jël jëlli nu ndax nun mbër ma yor asamaaw ak suufa yor sunu mbir xar baaxi ndam noo ko am ngir nun danoo bërewul te jël ndamal bër yi biir ak biti ñeewu nu mbër noo ëpp ndam gaaya daa bàkkoo ka làgg ka tëb ci biiri géew a ka soobu ci lor moo jël ndamal gaaya ub noo jël ndamal ñañu ub noo ëpp nit ñépp muur ak ndam ku baaxam yor noo jël ndamal gaaya ub noo jël ndamal ñañu ub noo ëpp nit ñépp muur ak ndam ku baaxam yor ku baaxa yor sunu mbir moo nuy musal ci lu bon moo nuy mayit wépp yiw rabboo ki cantam war ku baaxa tax ji sunuy kër kër te am njariñal kër kër gërëm koonu war tey sax ci jaamu gu wér ku baax a tax ñàkku nub xam-xam taam njariñal xam-xam bu wér kaare nun noo am lu gën ame ndar noo làmb daj bamba daj yonneen ba làmbati daj buurub aras bënn géejug barke feesali xur yow rekk am solo accam jox ma sa loxo man noo ànd wéy ku la am sotal na yaa di nga ñaay yow yaa di gàmmu ci aw nit di tabaski ci mbég di am nawet ci njariñ rusloo nga taax ak njaay yow xarit nga ci nun ak tam xarit nga ci nun seetum ngërëm bu ñëw may ñépp fal ku ne saay nun noo di sam topp noo lay topp may nga ndam ba noppi far nu gërëm yàlla rafet ci sa waay mboolem ku yegg ci nga jóg toggal ko togg gu jub jaxas dawal ràcc say dab ba noppi nikaay sa woote reekay jëriñ foo toll wooma ma ñëw nga jañ ma ràcc bu sedd xol tofal ca ci faay yaa segg lor yi ba mboolem lor yi set ni welas nga jox nu nuy jariñoo koy sant yaa gëni baay gërëm nga yàlla bu wér moom it gërëm na la kët ñéppam gërëm na la it ngir yow danga bañ a aay yàllaa la jàpp xamal boppam yabal la nga ñëw xamal ko ñépp asal toolam bi tee nga mu ñaay defar nga toolam bi jox baykat yi añ bu rafet koosee na ngiy sànni goppub cant yaa sa fi gaay la dee fi wut lépp a ngi tey jii ñu denc ci yow la dee fi wut nekkatul makkaaki faasa ki xaay fu as njariñ masa nekk ak barke jóg na fa tey ay xotta des fépp yow mii dong yaa di nga ñaay fu as njariñ masa nekk ak barke jóg na fa tey ay xotta des fépp yow mii dong yaa di ñaay sëriñ bi moo tedd moo xam yàlla moo wéri bir nu ñépp yàlla na nu sax ci jub temel na ko sax jaambur ñi fab seeni mbir jébbal ko ak ñi mu yor ak ñi mu bokkal geñoo ko bokk yàlla nañu def la set duggu yëpp xolam faw ak la koy tax a bég ci ñoom a kay ree ba naa yéene ña am jërëjëf doomam yi ak doomi baayam yépp ak ñi mu xam ciy donga yàlla nañu am gépp ak juboo jëbi jëf doomam yi ak doomi baayam yépp ak ñi mu am ciy donga yal nañu am gépp juboo jubi jëf lay tax mu sant njabootam gépp cant gu bir tey ak ëllëg yal na am santante am ñu ni tëf soxum ngërëm buy waral mboolem ña dee fi yilif ak ña yilif bokk bég ndolleen yeneeti dalak yàllaa ko sant gërëm moom it mu sant gërëm gaayam ya sant gërëm moo far mer ak jëfi ndog juyoo gi yal na dañ ak juumoo gi dañ gu rafet réeroo gi dañ gindikoo am ñépp dolli ku laf seytaane yal na ni motta wépp tiisaku ay ñëwum ko faw ci nun dakkul nu gaa yi mu fépp sëriñ bi yal na ni jaas ak jëpp jàmm aku yiw fajal nu aajo yi loqal fan yi def lu nu saf sëriñ bi yal na ni jaas ak jëpp jàmm yiw fajal nu aajo yi loqal fan yi def lu nu saf sëriñ bi yal na ni jaas ak jëpp jàmm ak yiw fajal nu aajo yi lokkal fan yi def lu nu saf mbooloo mi ak yeetee ngi nii waajuy nelaw na ko daldi xam tey ndaxte yeewoo gën nelaw yi ñaari gaay yit seeni mbir mat naa xalam kiy daw lu bon fu mu toll ak ki lu bon di daw kiy daw lu bon ngeen jib murit la bu yëggagul ki lu bon di daw ngeen jib murit la bu daw baraw kuñ musul am ndong mbaate muy daw yëggagul ndeke yëgg dootul dox di musuloote ka daw bul daf ba gis wax ji ma wax tax na nganaa yonent da daa musuloo ka daw laajal lu xew loolee mu daa musuloo ka daw dafa daa xeetam yu waajuy door a jóg fu mu war di aw kiy wut ñëw ak di wut yit bokkiwul kiw di raasee gën asal kay raasu yiw foo gis murit buy raas dafa yëggagul nde ba yegg dëggu yiw da koy raasee ka aw na yëg ni nag kuy door a jóg day raas yiw ngir nit ku bëggu goj dafay sëgg guy te raw kuy jajji ab teenam te teenam bënnagul bu mu toppandoo kay waaja ab teenam di saw koo xam ne teenam saw na mën naa dal sol mbubbam ak yi dallam tewe ngir jëm na kaw teke bën na teenam ba sol mbubbam di wéy bu ko waaja bënnul toppandoo moo gën di ndaw saggan jigul kuy door a jóg lii maa ko wax yeewul tegas kuy jajj day néewi nelaw kuy door jóg lii ko wax yeewul tegas kuy jajj day néewi nelaw gis naa lu rëy la nga def gis naa lu saf la nga def gis naa lu jub la nga def yal naa gërëm nga gërëm guddal nga aw fan defar mbir farlu bon fegu ay wéral yaram seralub xol guy dolli xoram jagal nga kër jagalub tool ak nawet rafetal njort ak jëf ak xol akum xel boole ñépp yëram yow jël nga ndam maye ndam am nga yarit bu rafet may ñépp yar bu rafet koo seeru far nga meram setal nga sab der setal koo gis ba noppi setal deram ba képp ku am lor fañ nga jépp loram yaa wàcc wàcce se jaanit wàcce faw sa coo wal ndam ni ñol ca kaw yaateenu toppi xiram yaa wér ku wérul yaa way ku wéyul yaa saf ku saful yaateenu xëy ni jirim yaateenu yelwaani yaatee ñépp xëy nu yaram yaateenu ñaxtu ci biirum ñax mu wow ni ngaram yaateenu yelwaani yaatee ñépp xëy nu yaram yaateenu ñaxtu ci biirum ñax mu wow ni ngaram yaatee nu rus yaanu tee ras yaanu tee jege lor yaatee nu mus sax ci réccu sax ci nërëm yaa sangu yaa sange am yaa sedd ñépp ñu am koo gis ma ngaa ku cëram yaa sangu yaa sange yaa am sedd ñépp ñu am koo gis ma ngaa ku cëram yaa sangu yaa sange yaa set yaa nu boole setal yaa mat matub sang jaajëf may nu lépp ngërëm nu ñépp yal na nu lay santoo ka sant ka gëm bu wér na nga nuy ñeel ak sa lépp ngërëm nu ñépp yal na nu lay santoo ka ka gëm bu wér na nga nuy ñeel ak sa lépp ngërëm teengi na far muñ sëriñ baa ngi ñëw ak lu rafet bu nday ñëwee jooyi doomam dakk léegi mu ñëw bis ci nit ña bu ñuy yuuxoo ko jàq kërët ba Mustapha ñëw ñu ànd ak seen xel amu yiw nu nag danoo xala bég tey bég ëllëg gaña far sëriñ bi jum na pexee mit nu nekk ca kaw sëriñ bi nag moonu jur yonen ba jur ko bu wér sunu cër fa ka wér noo jub te jub fu nu aw noo sell mun sell maam ak ndey danoo rëy ya nun noo juddu noo di gërëmi noo mata naw noo sellu nun sell maam ak ndey te noo rëy yax nun noo juddu noo di gërëmi noo mata naw noo donn ak pal ci biir ak biti noo di la wax yu rëy ya daa takk ndombay tànk dootu nu sew yàllaa nu yëkkati nag ak yonenam ba bu wér jébbal sëriñ bii mu xëy jébbal yiwu nu raw jébbal na nuy ndomba jébbal nuy midaayaki pal jébal nanu xaalis ak ñuy ñukku ñukki di daw jébal nanu yaratub xam-xam defar sunu mbir tamay nu yàpp wudul jeenoo ngi sant ka xaw bënal nanu gàjj jox nu pepp may nu xoram te teg nu nag fi barab boo xam ni lor du fa aw moo boole mucc ak njariñ jébbal nu fàww bu wér ba noppi ñag wër nu may nuy may yu rëy yu nu lew moo tax nu raw lor te jot aw yiw ba dootu nu raw na njort yépp rafet mboolem lu baax a ngi ñëw lafañ bu war cig saxaaram laa lu bon duma jot yeefus bu jàpp ci njax laf laa njariñ duma raw miskin bu takk ci ab tab laa bu ñeeku li yëf laa xoy bu sax fi gannaawu dann laa bu ñu naw li lee waral lépp lii pël bi li mën a am laa xoy bu dee dawaloo ko baa ku ñey la fa xew ku manki laa ku ni ràpp ak mbër mu tedd mu mat ku takk laa ku ni ràpp ak dex gu feesa ku yiw ku gàtt laa ku ñu fab jébbal kasut ca ña mu fab ma sànni ci mbaggam may wax ca kaw ndaw rekk laa lu ni ràpp ak mag ma mag ca ña mag mu def ci man mbóoti mag may mag te naate ni ndaw kuy sàkku ndox laa fi géej ak dex amaana ma am ku làqu laa fi gannaaw ak mbër amaana ma raw yal naa raw ak ñi ma àndal ñépp raw gu rafet yal naa ni nuusa ku yiw mboolem njariñ lu ma raw yal naa raw ñi ma àndal ñépp raw gu rafet yal naa ni nuusa ku yiw mboolem njariñ lu ma raw saa mbër ma jàggil na maati mbër ni xeeq fi suuf bu dul ko nag li nu far saa ndong gi dëkk fi suuf ma jóg te wuppati kos lëf way ko bés yaramam te kañ ko neexal ko ngir moo tee ma am lu ma sof moo tee ñu yab ma te moo tee ñépp xëy ma yërëm moo tee ñu sangu ma fab saa ñaari tànk ñi guuf bu may wéeg sama xiibon gii ba mbër ni ma is mu fil ko dammi yaxam saaxol bi sedd gëriif moo tax ñu fas ni damay mbër man te kat duma mbër xiibon bu bon laa bu làqoo mbër mu jàpp ma wuuf mbër maa ngi nii rekk làng ak man bu làmb di jib mu jóg ubal ma ko tey fam nag ndamam di ma rof fam nay ndamam ak i cantam yépp sol ko ci man ku jëm ci man bëgg maa def lëf mu teg ko fi suuf jagil nga ni bëri bëri yoo xam ni mbër mu ca ne man fopp junni bi maasam yaaka ñàkk moroom mbër moo ca gis bu ma nee ëf sax ma daanu ca ñàkk te yaa ma jébbal sawab roccil ma sépp soloom mbër moo ca gis mën na maa may cukk waaye ba nuy léewoo nga toj gémmañam muy xam ñu naa ku ko boom yaa sa tànk bi yow mii teg ci bon gu ma bon ba feeñatul yàlla boo teggeeti tànk bi moom sa tànk teg ko ci gépp bon gu nekk ci nun ak bon gu nekk ci mbooleem gaayu niy joxi koom te teg ko faw ci gépp bon gu nekk ci lar bu nuy bëggee ka defal aw yiw mu sant ba luum te teg ko faw ci gépp bon gu nekk ci lar bu nuy jógee ka defal aw musant mu sant ba luum xol yépp yal nañu sax dàkk ak yaram yi ci naat muy wéy ba ko gis ni ay tànkam ci àjjana naat naataanga yal na ni dàkk ak nun ni dàkk ci nun te dëkk faw ci nun nuy gën ku nekk gënaat yaram yi ak xol yi ak kër yépp yal nañu jag sunuy bañit yal nañuy bon leeka bon di bonaat saytaane yal nay tëlee kay lottu faw ci nun nun yal nañuy mën a kay def yiw wu neeka manaat lay tax ñu jébbal mu biir ak biti lépp lu nuy wut yal na am am gu jàmm ak fan wu gudd ranaat lay tax nu siggee ki ndam bis penc yal na am ak lay tax sunuy mbay lewet ñor taaru ñàkk bi naat yal nay njariñ sax fi nun

lay tax nu fekke déwén nun ñépp yàlla na amat lay tax nu weesoo ko mbég weesoo ko mbég déwénaat déwén ju ñëw yàlla na nuy teewee ka weesu di naat tey wey ba koo gis ni ay tànkam ca àjjana naat déwén ju ñëw yàlla na nuy teewee ka ni ay tànkam ngay ci yàlla akub yonent tamay la la jig nun mooy ci yow dong ak doy loola rekk nu jig yaaraasi yàlla ak yonen ba far mbégi mbég ñun ñépp yal nanu lay raasee ka far mbégi mbég yàllaa la jig yaanu jig ngir moo la xëppi njariñ nun yaanu xëppi njariñ jiitul nu topp la teg yow moo la fal yaanu fal moo tax nga am li nga am yaatax nu am li nu am doog nu nit bu nu gag moo lay defal lu la saf yaanuy defal lu nu saf moo tax nga jekk te jag yaatax nu jekk te jag moo saytu sag tos te saw xos nga saytu sunu tos ak sunu xas ku téeyul saw ratal dana tag koo xam ni téeyoo sa wuy doktil te saw ratalit dootoo ca jot mukk lii bon yàlla yal na ko fekk yaa yegg yaa joti yaa jot yàlla yaa ca jotit nun ñépp yàlla na nu lay jot jot ci yow telefag na ngay cant ak ndolleen lu sax dinu yët muy dolli ko ci yow cant ak cofee la ku dikk yokkal nu digg wi ci gépp wàll guy maye ndam yokki nu cant wu sedd xol wu ni taxa dëkk yow daa nga yokku diggum nit daa nga yokku diggam yokkal nu yépp ci sag baax ak karaama yu mag yow yaa di mag yaa di jaamu mag te jaamu nga mag moo xam ni jing na la gépp jig yow yaa di mag na la gépp nga boole nu jig bu hay jógee jëm ci nun yow bàmba walbatiku mboolem lu jëm si ci nun ciw ay na walbatiku ñàkk ak wopp ak dee ak lor lu ñu bañ na yépp jëm fu nu mooy nuy sant bay tariku mboolem ku ñakk na am mboolem ku wopp na wér maral wi na nu mes naataanga it asi ko nun yàlla bindunu ci ñàkk lu bon aku ay ka yàlla binde bon ak ay jëm ci yow na ko mboolem ku ñàkk na am mboolem ku ëpp na wér maral wi it nanu mes naataanga it asi ko nun yàlla bindunu ci ñàkk ak lu bon aku ay ka yàlla binde bon ak ay jëm ci yow te na ko naataanga rekk ak nga nee la xol bu sedd aku yiw la yàlla bind ci nun saytaane dakku nga ko ba max nga saytaane muy luy jëm ci gaayu nu mooy lu dee fi bañ lépp lii rek biti raw nanu ko ba mas nga seytaane muy wéy jëm ci gaayu nu mooy lu dee fi bañ lépp biir ak biti raw nanu ko fa yoonu yow danga noo may koo mayul dana rus koo gis ci nun am na may goo xam ni jomb na ko séetoo la jaadu ci nun séetoo la yellu ci nun dangay duyal ñépp koo gis fa ndabam duy ko danaa la wax fukki yëf yoo xam ni yaa ko jagoo amoo ca bokkaale doo gis kenn fab lale ko waaye ngor ak tabe ak muñ ak lewet aku fit akuk ragal yàlla ak xam yàlla ak bàyyiku ak yar bu mat sëkk biir ak biti mat gu rafet say fukka ngi mbàkke jàppal kenn sàcc lu ko alhamdulillahi tey noo ngi dagaanaka wut waamee nga ne la ki xiinal te dotti nu ko jaaraama gaa yi bamba yi sang yi yéena di njiital donga yi am ngeeni ndam tey ëllëg yéena di njiital dongo yi am ngeeni ndam tey ak ëllëg seenub sëriñ tey moo fi gën gannaawam it yéen a fi gën moo gën sëriñ si yéen a gën nag seeni kem bég leen a bég lii gu sax mayewu ko te ju rëy mayewu ko pexe mu rëy mayewu ko mbay du mayab nawet bu jag ku yàlla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci dong yi nga xam ni ak baaxama nag yéen a gënub sëriñ ku ne yéen a gënub murit ku ne sëriñ bu nekk xam na ni yéen a gënub nitam bu dog asaka daa la ki sarax la daa boole di jox ab sëriñam di ko wax sëriñ bi maaka ma tayëg benn sëriñ mësula am ku koy joxuk juróom biram ndare sëriñ bi ak ñoñam ku wedd lii mata alak sëriñ bi daa masa am ku koy joxuk juróom biram deewoon ndigal di wut ngërëm di boole guddee ki bëccëg jomb ko giir def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñëw ñuy door a jóg jomb ko ngir def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñëw ñuy door a jóg ku jóg di daw dootoo ko jot ku war fas dootoo ko jot ku war saxaaret doo ko jot fa mu ne yàllaa ko fa teg ku wax lu dul amul moroom te fa mbiram jébbal ko moom aw ndigalam def ko boroom yàq na fen runge teg ak yal na mu boole nu yërëm faw te may nu ngërëmam musal nu ci mooy ndigalam teg nu ca kaw tey ak ëllëg yal na nu boole nu yërëm faw te may nu ngërëmam ci mooy ndigalam teg nu ca kaw tey ak ngërëm dootu benn murit ndax am murit saa su bëggee lu dul ndigal ak ngërëm dootu benn murit murit dëgg yombul la yombay nga wax ni man am murit laate doo am murit ku tàggoogul ak soxla kay du murit ka tàggoo ki soxlaa di ngeen ji murit fabal sab sëriñ teg fi sab xol xalam ba far fàtte say soxla lii di murit murit buub sëriñ dul tuxoo xolam du am soxla yal naa di boobee murit yëgal ni dunyaa ni ak dex la mel te nag ab sëriñ moo di gaalum murit njëgam nag sëriñ moo di gaalum murit moyul génn jëm fenn yow kii murit ku génn du lam mukk kuy génn lab akay leb tey yaara yàqum murit te lab man la teekat nga leb lab lu dul nga wut sëriñ yow te muñ ak murit wut lëf lu dul sab sëriñ dal di lab teleb ñépp far xëtt sarti murit wutal sab sëriñ yow taloo ñàkk muñ taloo am fa jox ko kon ngay murit murit day muñu ñàkk muñ jépp lor ba sangam ba dàkkul ko luy lor murit lu lay dal ci ak ñàkk mbaa lor muñal ba sab sang teggil la ko yow murit bu sab sang teggee sa ñàkk ak sa lor ku lay deeti teg ñàkk ak yi lor murit bu teggee gulit nag sa ñàkk ak sa lor ku koy deeti teggee te tontul murit joxal sab sëriñ sag jur ak sab xolit te bul wax lu bul wax li murit lu dul maa ngi nii di yaa ngi nii bu koy wax bu koy wax lu déggal murit yabal nit fi sab sang wax ko lëf lu dul maa ngi koy sopp kay du murit bàyyil dëgg yóbbante lëf sab sëriñ lu dul ak jur ak bëgg a def am murit dangay sangloo sab sëriñ saw yaram te boo yëngutoo kët mu daw laa mu xamal yow ni ab sang day sangu nit te doo gis mu sangit ku deewul mu mu kallaf mu deewul ku koy sang moy te ab sang moytil yëgal lii mu rit lee tax ku tuddum mu yomba gis la taa ku tuddum mu tey mu rit dëgg day dee te deewul asal li dee metti metti jotul ak murit amaana nga gis waaju tëb dal dee te doo gis ku tëb dal def am murit gisal waay mi jóg di daw ci murit ba am ay murit nag te kat du murit gisal kii itam jóg di daw ci murit ba dundam ba farjee mu réere murit ku fas ni ku am ay murit di murit te fas ni ku ñàkk yi murit du murit xamul la fi yëgul sax laam ak la xew te kat du murit sax xamul ak murit xamul la fi yëgul sax laam ak la xew te kat du murit sax xamul ak murit mi ngee tax ba seytaane war gaa yi tey tënkuy murit nag ci am ay murit te sax kuy murit ak ku dul am murit fa bis penc lay feeñe yeewul murit bu deesee la yoo koy fexee jóg di aw siraatit nga xam yow ku doonum murit balaa kenn xeebaate war naa ne git ba xam luy fasoo xew ci bépp murit murit yépp a ngi mel ni gàncax gu sax te gàncax xamu ak mu jëm kët murit te gàncax amaana mu jóg neex a gis maraw dog ko jëkku ñoram cey murit amaana nga gis gàncaxit jóg woyof te naataange far jot ko waarul murit nangay mujj yàllaa ko xam moo xamit kanee nit la muy mujj jàppul murit bayil yam nit ak dox di xeebi biram amaana nga yab koo matoo ko murit ku tàbbim nawet yow te góobu bagar ba farman doo xam la ngay am murit ku déegul lu xam-xam du xam ay biram nangay mus lu foo tollu am ndong murit na ngay tuuba kay yeesalum jëbbalit di xeebit sa jëf yépp ak sa murit ku xeebul jëfam dal di naw ay jëfam ku naw ay jëfam dal di set ci murit sa jëf boo ko dee naw danga réere kon ni yàlla la sàkk ak sa jëf yi murit njëgam xam nga tey jii ni yàlla la jëf bu wér ak sa jëf yi bàyyil ndam murit bàyyil ndam te taqoo akuk cant far mënoo lëf defoo lëf xamoo lëf murit ku gis gopp buy naw mbayam moo ko dof te wax ji ma wax yow xalam koo murit kayar gopp baa bay nde goppam ba kay bayul lëf te yow yaa di gopp bee murit sëriñ bee la yor moom itam Mustapha ko yor yàlla yor Mustapha nag murit sëriñ baa ngi jébbal ko say mbir bu wér te def ko sëriñ moom mu def lam murit sëriñ baa ngi jébbal ko say bir bu wér te def ko sëriñ moom mu def la murit xamal lay biram yépp jox lay ngërëm yi dul jeeki barke ngeen ji murit fegal lay lora ñàkk ak ñépp ndog te yóbbal la yóbbal sa bépp murit nga far jekki-jekkal sa bépp murit nga sellu murit nag ñu sellu murit ba ngay sant ñuy sant ngay bég ñu bég nga mat ab sëriñ yow ñu mat ay murit ñu nee di cëriñ la lee di murit lu dul lii du gennu cëriñ du murit defarkat bi maa ngeeti ak saatilim defar maati yow mii defar sa murit xesaw naate fees ak lu soof ak lu bon setal maa ki yaa di géeju murit doxal saa digg luy waral ak tilim te leeral ma faf def ma jantum murit gërëm naa la xam naa ne mat ngab sëriñ bu wér waande yal naa la mat am murit te yal naa la saf-saf sa bépp murit te naa la am am sa bépp murit joxal bépp jullit lu seddub xolam ba mboolem jullit ñépp def say murit fabal say murit yépp teg nag ca kaw bu kenn gis ku suufeeti tey am murit ku dul sa murit yow nañee sa murit te bul baate kenn ree sa benn murit ku dul sa murit yow nañee sa murit te bul baate kenn ree sa benn murit sëriñ bi yow mi tabe ba jiitu mboolem ku tabe te man ku daa yorug di bi tàllal mu tey sa loxo bi xamal ni koo joxul du am nit képp koo gis mu am yaa tax mu am loolee mu am amal mu yaa am te tabe noo ngi di tabbi àll bi diggante kay xëy di rëbbi kenn dootu def lu dul bi te say ngërëm la nuy rëbbi yii gaaya ngiy joxe alal yii gaaya ngiy futti ku dal yii gaaya ngiy di la bindal gaa yi di jàng téere bi yii gaaya ngiy di la duyal sa band yii ak a dawal yii gaaya ngiy di la wayal yii gaaya ngiy di la dabi koo gis mi ngi di def lu ne te yaa ko tax di def lu ne ngir yow dangaa defal lu ne yoneen ba ak sa sang bi nekk yaa ko gënu nit ku nekk yaa ko gën jëfit sa kem amul te du amit giñ naa ni yaa doon nabi waxii na may yow sa waxiin defii na may yow sa defiin doxii na may yow sa doxiin ngiram nga teg sa tànk bi yonan bi yow rekk a ko roy toolam bi yow rekk a ko bay moo tax ba yow rekk a ko doy lii tax mu jox la dëhëru bi toolam bi daana defi mbooy te yaa ko tàggalee mbooy yaa dikk bay ko mbay mu nooy yow ak sa goppub sunna bi àllarba rekk ak dibéer ak mbindal la gaay réer daa bay del si dal di wéer gopp yi nag wër jàng bi nga dikk mbàkke jéggi leen ku nekk naa ay seenu leen ngay wéy di wéy ba weesu leen nga samp nag sa jànk bi di xëy di gonte ka bay di sol te doo xama bay sa mbay rafet te doo tay rusloo nga dongay dëkk bi yeneen ba fépp fu mu doxoon donga fa lépp waxoon wax nga ko lépp lum defoon def nga ko yaa di jàll bi jàlle nu ak sunu njaboot bu kenn des na nga nu boot tey ëllëg bu nu fa tiit bun gis lu tax nuy rab rabi addina ji li fi dale ba jàpp àjjana jële diggante bi nang fi jële lu nuy ragal yow sang bi sunuy wërsëg nang ko baril sunu fanit nang ko guddal sunuy yaram nanga ko wéral te sol nu nag sa barke bi sotul ñu xiiwal gu nu doy gu yeewi rab tey rëy rëy ba nuy dundal baay ak ndey te mel na xel du daj lebi te may nu toolit yu nangu ak yi murit yu bàyyiku yu dul yàkkamte yewiku koo may murit yi mu xëbee may nuy murit yu dul xuloo kay soowa kay dox di daloo ak naa ko xam lu nuy jaloo sëriñ bi dolli natt bi may nañ murit yi dul xuloo kay soowa kay dox di dalu ak naa ko xam lu nuy jëloo sëriñ bi dolli natt bi baaxal nu may nuy gaa yu baax neexal nu may nuy gaa yu neex féexal nu may nuy gaa yu féex jamal nu yaadi dann bi sunuy pital ak sunu xeej yépp fa neeti nu ngéej nu am la yow kitab bi géej ba génn dàq xare bi ku yor pital ku dul yawit du tax mu jam fi aw sàkket koo xam ni jëmti lu sàkket moo jaalu muy yor dudi kuy bari man man ak léej ba joxul ak fitalam yéej ku weddi lii na ma ko laaj man Baabakar sa dongo bi jox naa la man samak fital dootuma fab samak fital yow rekk a mat di jox fital ngir yaa fi dul mooy paddu bi seexal nu may ni gaay seex bay jàppi junni naanu foox nu di ko fam naa la ko foox te naa la nangul nusu bi ngay nangu naa lii kay dusu ab junni kay ëpp na nu naa la ab junni di su fi yow mi suuxal jant bi defal ndigal muy sunu kër bunta bi mukk genn kër gudul ndigal ngir googa kër du kër gu ay ngërëm tabbi tabal na it néegi ngërëm tamay nunun lépp ngërëm terik bum génn ngërëm di soobu jeeti àll bi danoo tilim te bëgg set te boo yaboonu dal di set ngir yow setal nga képp nit setal na yaa di póotu bi setal ma set gu jubu bu àndul ak jóg di fabu di dox di daw ak a nëbbu fegal na nun sa nattu bi nun nuy na toona dey gëlee kii fas ak bëy ak i dërëm ak bàyyi mooy ak a xeraf sa bunt bi bu daj sun xol yi lu dul yow rekk ak loonu digal ak loo bëgg lu nuy bëggal lay dëgg yaa di soppe bi mboolem lu nuy fexee ka wut yow rekk a tax nu di ko wut yaa jar di wut di wut di wut ba dee fu kenn dul robi suñu diggante yal na leer te jag-jag ba nga ne kaar te sax ba doy la gépp waar yàllante nuy sa bopp bi yokkal nu xam gi nu la xam yokkal nu am gi nu la am yokkal nu gëm gi nu la gëm yokkal nu it sa yàkk bi yokkal nu tey yàkk bu rëy bu kenn xamul naka mu day boo xam ni bii dana nu doy te may nu luñ dugge jabi tawal nu waame um ngërëmit wu rëy rëy te du séwét di dotti noor ak nawet te jox nu nag sa loxo bi man lar bu bon bii te jagam naa yàlla nag njagam loxo bi kenn amul njagam tegoona ak saa loxo bi man lar bu bon bii te jagam naa yàlla nag njagam loxo bi kenn amul njëgam tegoona ak saa loxo bi sëriñ bi maa ngi sàmbattu saa ngi sarax ma barke faf ma yéege sëriñ bi maa ngi sàmbattu saa ngi sarax ma barke te faf ma yéege man ku ma yalwaan ma di la yalwaan faw akay xaar foo tollu te ku ma yaakaar ma di la yaakaar faw akay xaar yaa ngoogu ngi saa jàmm jaa ngi saa loxo laa ngi sàmbattu feesal ko saa jëmm jaa ngi saa loxolaa ngi saa mbattu saa ngi feetal ko léegi saa bokk yaa ngi saa donga yaa ngi saa soppe yaa ngi fi man di jëkki ku nee ngi sonne saa mbir te fas mi maa ngee ki junni fi sama kër gi te ooma nii ni waxuma junni yaa amee junni sa junni yaa ngi duy ma ma duy leen may ma ma may leen fab ma ma fab leen sutura saa ngi gaayaa ngi may woo man naa ngi lay woo nu bokk lay woo wuyu nu yaa ngi aajo yi faj ko rag yi faj ko tawat yi far ko fegal nu dee gi mbir yi jubal ko kër yi jagal ko dugub baril ko ba kenn du jëggi mooy yépp far ko ba noppi fekk ko ku nekk may ko lu gën di jàngi may nu ñu gëm dëgg te saf la foo jëm nu naa la addiya jaa ngi nañ nu saraxe yow ite yi jëm kaw tey jëm a jëm kaw tafaf nu yéege ajjana fab ko jox nu mu ngëb ko sawara fekk ko fawote ngëb ko ajjana fab ko jox nu mu ngëb ko sawara fekk ko fawote ngëb ko sa benn buntub ajjana bul ub sa buntub sawara ub ko dig bu ne yokkal dig wu ne yokkal kër gu ne yokkal ndab lu ne duy ko moy gu ne far ko lor ju ne far ko diine ji ko taalam bi wal ko jullit bu nekk jox ko lu nekk may ko lu nekk te yor ko ful ko seytaane dakkul buntam ba xolam ba yàqal néegam jafal ko gétam galeel ko jox nu nu ko mu ñàkk alku ay wana dal ko jëbal nu suufam nu mujje suufam mu ñàkk suufam nga fam nu fel ko koofil mu daanu koofal du daanu sa mbër du daanu day ub tetal ko sutura dollil tiraanga dollil tëdd nga dollil barke saxal ko wërsëg baril ko loolit lewal ko ku safal ko sàpp notal ko ku ne ko ku ne defal ko xelam dalal ko xolam seral ko ku ne musal ko ku ne mosal ko ku ne tofal ko ndam te bégal ko ku ne gërëm ko ku ne yërëm ko ku ne xoram ko ku ne nayil ko ku nekk nay naat xolam ba naat këram ga yit naat ñu rafetal ko ku nekk nay jag faw këram jag mu deg këram deg ñu yewenal ko ku nekk nay buur bu nguur te saxa nguur ñépp sagal ko yal na nu sakku yàlla te wut ko ba gis ko mus ko jàpp ko ngëb ko yal na nu sakku yàlla te wut ko ba gis ko mus ko jàpp ko ngëb ko bu dee ci séddoo yal naa la séddoo yow ku la séddoo gañey moroomam bu dee ci faaxu yal naa la faaxu yow ku la faaxu yéemee fi toolam bu dee si waaji yal naa la waaje yow ku la waaje gën fa boroomam bu dee giiroo yal naa la giiroo yow ku la giiroo yëkkati giiram bu dee si jangi yal naa la jangi yow ku la jangi janloo ki wuuram bu dee muuroo yal naa la muuroo yow ku la muuroo barke di muuram bu dee raasi yal naa la raasi yow ku la raasi ñibbeeki koomam bu dee si yalwaan naa la yalwaan yow ku la yalwaan feesali buusam bu dee si ñaani yal naa la ñaani yow ku la ñaani jàmbatu diisam bu dee si santu yal naa la santu yow ku la santu rangoo buumam bu dee si naa la sant yow ku la sant nga dolli nguuram bu rooti yal naa la rooti yow ku la rooti delloo buusam bu dee si waare yal naa la waare yow ku la waare waari moroomam bu dee waare yal naa la waare yow ku la waare waari moroomam sëriñ bi laa te lu tiim laa te kët sa laa raxas ma duy ma sëriñ bi ndab te lu tilim laa te kët ma duy man nga defal ma defal ma barke ci sama kër gi ak nitu kër gi te sakkanal ma bu ma gisi lor ku nekk saa kër bu ma gisi lor tofal ma jàmm bu ma gisi lor ku nekk saa kër bu ma gisi lor tofal ma jàmm ku nekk saa kër tey wee saa mbir dee ko fegal lor fawaka sàmm barab bu may ne jàmm na ne xéewal na ne dëgg safal ma na sama kër tooy sama xolit tooy samay waxit nooy nga lewetal ma na sama jëf baax samay waxit baax samay njurit baax nga ma aw na may dal ngërëm na may dal jàmmit na may dal tabarke ma def ma ku soppeef def ma ku tànneef def ma ku fonkeef fépp tafal ma def ma ku dul moy mu ku ku dul xëy benn ba def ay dëgg gërëm ma jàpp ma tabbal faw ci sab xol ma ne ci sab xol saf la nga saf ma yërëm ma fam ma yëkkati teg ma ca kaw te yor ma nag te gënal ma naa dëkk man kaw bu ma tuxoo kaw di jëm fu dul kaw mukk musal ma te may ma faw it itte ju dul rot man itte juy rot fegal mu moy ma itte bu dee rot boroomam rot fegal ma ak rot man te weel ma ite bu dee rot boroomam it rot fegal ma ak rot man te weel ma itee di ay laaf te ku amee laaf du ñàkk ay laaf daanu ni nemm yow mi joxe laaf sarax ma ay laaf te bu samam laaf rot bu mu damm te may ma naaw faw akay gaaw ba jiitu kuy gaaw teew ca ngir ma naa jiitu kuy naaw jiitu ku daa naaw ak ku fasoo naaw lii lépp may ma naa yegg yegg ba dëgg te bañ jeng fenn temm naa yegg yegg ba dëgg te bañ jeng fenn temm waroomi kaggu ak seeni kaggu ak seeni dongo màngal ba max ma fanweeri daara ak fukki daara ak ñetti daara tojal ma jox ma naa jàll jàlle di fal di follee ñu gëm ma weŋ ma ku mën a manki man bu ma manki luy tax a manki loola fegal ma kuy sew la itte tey rot la itte na sama itte rëy nga yoral ma man bu ma rotle waande ku rotle na ko farle tafar ko far ma yiwu ak ku ma rotle ak lu ma rotle fore yet ma te lu daaraw ci toppaku yiw dabil ma tey yow yoolam ba jox ma def ma ndabal yiw lu set a set yow te fees ak yiw dellu bégal ma man nga mënal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma man nga mënal ma xam nga xamal nga amal ma doyal la ko war tuubu moyam sant ak mayam rafet njort sax ci jub lu dul lii warul murit murit la ko war tuubu moyam sant ak mayam rafet njort sax ci jub lu dul warul murit murit lay waral sangam ba sant ko nii day ne ci toolam ak néegam di waxtaane ak murit te kenn du ko gis muy dugg mukkit ci genn kër di waxtaan akay caaxaan akay saf ku dul murit murit boo gisee muy gis jigéen aka dem këram di jonjooka bamboo kay waxante du am murit murit bu bëtam dee xel matis ndaw mu sëgg yooyu du xam na mu mel sax gaa yi nan yeesalum murit murit daana ñëw ci dëkk am pare nag déwén te xam ni du xàmmee kër waarul ci lii murit murit bu baree ab dox bari wax te gaaw a mer defub jaxasookat teg ca wallaahi du murit murit ku ca génn bi yar te génne ca aw ndigal te génne ca muñ ak jàppuloo ba ci ak murit du musloo ko daw saytaane lii rekk rekk des ku nekk a ngi tuddoo ak murit te sori murit wataaki fas ak ay jongamaane fi xol yi tey tuxal nañu yàllaa ko sëriñ ci xolum murit wataake fas ak ay jongamaane fi xol yi tey tuxal nañu yàllaa ko sëriñ ci xolum murit teel na sëriñ bii sañ ci faw ci xol yi nag te dëkke suñuy xol nuy murit yuy jëfe murit sëriñ xol bee di saakoor ak sama julli faw man bu ñuy woor a kay jullee ke wir dëma ko man sëriñ bee di saakoor ak sama julli faw man bu ñuy woor a kay jullee te wird ma ngab ko man te def naa ko muy saa xam ak sama diine it samay solo jëlul ban ba yam naa ci moo fi gën sama bari man-man dootu jëm ci lu dul njuram lu dul jëm ci moomu mooy la teg mooy farul dagan damaa lottu cig def lott cig bàyyi moo waral ma jox ko samay mbir génn cig doye deeki fen ku lottu dafay boole yi biram yépp jox kaman mu far ko defal moo gën di yàq aka def lu bon danaa génne ndaw ak mag ci saa mbir yi bopp yi te tabbal ci waane yu yàlla wii réyalub gosen bu jàppee ku tuutee tuuti bay toll nib gosen mu soppi ko ak tukkal guréy guréy jégal bu jàppee ku sew bay saf karam toll niw felit mu baaxal ko def ko ñay wu am barke gudd fan bu jàppee ku ñuy teggee ka yàqate ab deram mu def ko jaw mbég ñépp xëy duggi far dagan bu jàppee ko daaxaaraa na kay sol sagar yu bon mu jébbal ko dàggaakiy baraaya mu boole gën bu jàppee ku daa mooy yàlla ay yonnenam ba nag mu leeral digganteem ak boroomam ñu far ko til kilee mata jébbal mbir mu yor waane waa ngi nii te moy naa ci jébbal naa ko léppati faw man kilee mata jébbal mbir mu yor waane waa ngi nii te ngoy naa ci jébbal naa ko léppati faw man loolu yàlla bi yow mii na ñàkke lenn lëf te sab sang gën mboolem ñi gën ñépp ñaani ko ku sab sang yor suuf ak kaw ak fépp xëy yilif kajoor ak bawol jombul ci yow pal giraasi ko ku sab sang xam am sañ te man tee nga sant bég ni lu dul moom ak mbégam nag te faale ko na ngay ñaawe yow miy njor ta kay seenu jenn lor te sab sang fal mboolem bañam yépp xaari ko na ngay seenu faw fal bu ab jant fenkatee bu ab jant soo ngay seenu ndam ba fanaane ko bu la mën a tax ngay naagu yërmande senn saa du lay bëgg yët ak naagu dàq ko aaye ko sa sang bi moo mat ndax deful ku lor ak njariñ du njariñ ak lor du jolli balaali ko dafay musle ci lor daala kay masle ay njariñ nga doy lu na walis muslu ak maslu ko du mos lor du mos aw yiw lu jomb la ci mbiram mbiram ëpp nam xel yàlla na bégle te gaawe ko lu dul jëm ci mooma jox ko say mbir amul njariñ amul aaji ñekkul lëf te ab tab ko demal ni ko may mag pal gu rëy fab ma teg ca kaw samay kem bu wër siiwal sama tur wesaare ko demal ni ko may mag mucc ak musle faw man mu jébbal la mucc ak musle lii rëy dagaani ko demal ni ko may mag mucc ak musle faw mu jébbal la mucc ak musle lii rëy dagaani bi bégal sab xol na sedd nga sant yow ku yàlla bégal day dég te yàlla bégal na la bégal nga sëriñ sépp ak murit yi ba ñépp bég nga may leeni ndam saytaane bañ na la fañ na la bégal nga sahaaba yi teg ca Mustapha te jël nga ndamal mbooloo mi bari yépp naw na la bégal nga sahaaba yi Mustapha teg ca te jël nga ndamal mbooloo mi bari yépp naw na ya nag kuréy nga fa piriir yàlla xej ya xam na la teral nga jullit jay bépp yéefar mu wéy nga wéy telef mënu laa yàqal kañul ñépp kañ na la jullit ñépp ak yéefar yi ñoo bokk yam ci yow amuñ ko ci xam as lëf ci yow mi le bir na la ku nëbb ku feeñas lëf nga mboolem lu dee fi naw ci yow asa kay sag baax sab soppe may na la dangay saf ku teg téeméer junni fi as barab te feeñal ca benn junni fas mi benn la budul kon nga meen a càggan ak nelaw ak xaran sëriñ sépp booloo ñëw ni biri yépp lew na la ku not gaynde not segg ak mafar dàq ñay mu daw du soo wooki boy noppil téwéy yàlla gis na la ku lay def moroomit xam na xim nu yaa ko man lewet gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la def moroomit xam sarax nus ngërëm suy yokk faw te dootu